mbokk ñooru dirib bëggati naa ci seen teeru bëggati naa ci seen taxawaay wane ngeen ne bëgg ngeen kontaan ngeen lii rek la ñu mooy ñëw seen wet andil leen ay ngëneel ci li nga xam soxla askan wi la képp ku doon dem Gambie wala ngay dem Casamance amoon na jafe-jafe yi amoon ci yoonu Nioro bi def na nag la ñu leen waxoon def nañu ko mooy defaraat yoon bi ci anam yoo xam ne it ci yàlla àndee dootul gaaw a yàqu mu def rek usagers yi maa ngi leen di ñaan ñu bàyyi xel yoon lu mu baax baax dañ ko wara a toppatoo dañ ci war a daw ndànk dañ ci war a andi également entretien kon Nioro Kër Ayib Dingiraay Nioro Kër Ayib ak yoon yi nga xam ne ëmb na ko ak yi ñu def nekk na loo xam ne bokk na ci programme de désenclavement bi ñu yëkkati ci biir Sénégal